واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم السلام عليكم بوك جوليلي السلام عليكم بوك طالبي ñu ngi leen di nuyu fi leen daal nuyoo ci seen émission yi ni def ci daaray Kaamil émission bi ñu duppee ko Touba ak Touba ak nag dafa laal poñ yu bari lu jëm ci dëkku sell bi di Touba muy Touba ak santé Touba ak social Touba ak assainissement ak yëpp yoo xam ne si bànqaas bi rek euh, moom la yitteel ak par rapport ak invité bi na am moom lañ koy duddee ah, tey nag ñu seq waxtaan ak sëriñ Ndiaye Kamal Eh, doon mbokkum taalibe mu dëkk fee ci quartier bu naan mu muy quartier bu stratégique fii ci Touba moom nag mu ñuy waxtaan ci wàllum assainissement ak eh, nawet bi nga xam ne si ci leen jëm eh, dafa doon quartier boo xam ne si ndoxum taw da na yàgg sonal moom mu yàgg cee def ay yitte doonoon ci jàmbaar lool xam naa dina indi ay témoignage yoo xam ne si dund nañ ko ak aussi assainissement bi nga xam ne si Euh, dem na fa ak euh, lan lañ ci yaakaar ak lépp kon Serigne Cheikh Ndiaye Kamal ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala o barakaatu ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax yéen ñii di suivre site internet bi nga xam ne moom la ñuy tuddee ak man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye Kamal dëkk Touba Ngiraneen ñëwoon fi tey jii ngir ay leeral aslëf ci quartier boobu nga xam ne fa lañ dëkk di Ngiraaneen eh, ànd ko ak mbokki taalibe yi nga xamante ne bii tey ñoom ñoo waral lii am. Eh, jërëjëf suñu Cheikh eh, ci présentation bi am na solo Ngiraaneen dafa doon quartier boo xam ne si loxum taw daf leen yàgg a sonal ndax man nga ñoo nettali ci ay jafe-jafe yoo xam ne si dundoon ngeen ko ak ndoxum taw. Euh, ci pérétation ci pérétation bi sama maa ngi ciy présenté wu di tudd Serigne Moustapha Mbacké mi nga xam ne moom mooy délégué quartier bi fépp fu ñu teew rek moom lañ fa teewal waaye li nga wax ci turu Ngiraneen ñu war koo mën a wax ci lu jëm ci inondation yi nga xam ne moom la weesu liñ ci dund moom bari na lool métti na it wax dëgg yàlla euh, ndax am nafa ay kilifa yoo xam ne. fa ñu dëkk ca quartier ba yàlla dogal ndox mi heure bu ñëwee day nangu seeni kër boo duggee ca quartier ba mbedd yu mag yëpp ndox mi daf ko daan nangu ba daaw moo ci mujj ndox yu ndaw mbedd yu ndaw yi it ñu muy mbedd yi ndox mi daf koy nangu ba ci biir kër yi waaw amul genn kër goo xamante ni man ngaa dugg ci quartier bi ba ba nga yorom marché bi la fay nekk ci ay kër da nga koy wàññi avant màggal la nga xam ne man bi ma xoolee kër yi la fa génn boo ko boolee ak quartier Mourtala bi toll na ci soixante sept kër yoo xamante ni ñëpp dañoo génn euh, kenn nekku fa ñuy liggéey nag bi ñu bëgg a màggal yàlla dogal biñ liggéeyee ba jot a liggéey euh, euh, treize jours ci la ci la ñu bëri commencé waat di sañ si waat seen kër yi waaye taxul taw bi arrêté daa wàññi ko rek ndax amuñu fu ñu mën a nekk moo waral ñuy nekk fii di xëy di pompe waaw dund googu ñu ko dund daaw nag ak daaw jeg mett na lool waaye ren ñu ngi ciy am yaakaar incha allah. Ah, jërëjëf sëñ Cheikh ci nettali bi nga def par rapport ak année précédente yi eh, ci ndoxum taw mi ak coono bi ngeen ci jànkonteel yëpp yëpp mu mel na bi ngay jeexale sax kàddu danga nga ne ñu ngi ci am yaakaar. yaakaar googu lan moo ko wund ak lan lan fa defagoon ba yaakaar war cee mën a judd. waaw sëriñ bi la tax ñu ñu ciy am yaakaar mooy eh, dañoo amutoon booba canal boo xamante ni bii dugg na ci biir quartier bi jàpp ci kanaal bu mag bi ndax dafa am canal boo xam ne mi ngi jógee tali bu bees dem ba station Total mi ngi toll ci deux kilomètres trois cent yaatuwaay bi deux mètres la xootaay bi deux mètres cinquante. canal boobu daa leeru woon tali bi rek jaar fa jàll ñun dañ doon vider rek di def ci canal bi waaye fañ daan vider di def ci canal bi day sore day sori daa nga def lu mat samet mètres doog ñëw ci ci ci bi xam nga loolu sori na waaye tey ndax ñun ndox mi daan jóge ci jéggi tali bi di ñëw ci ñun tali bi mooy côté Kër Ñang bi di ñëw ci ñun. côté quartier Mourtala bi ndox mi dafa am jóge moom it mooy tali bi jëm ñaari pëna noonu di jéggi di ñëw ci ñun yàlla dogal na tali bi nga xam ne moo nekk euh, ñaari pëna def nañ foofu canal boo xam ne cinq cent soixante dix huit mètres la cinq cent soixante dix huit mètres la yaatoo un mètre cinquante xóotaay bi deux mètres ba pare mu am ay giri yoo xam ne ñoo dugg ci ci koñ bi ñu planté ko nga xamante ne bii day suufe bu ndox mi ñëwee rek day jaar ci giri bi dem ci canal bi incha allah te loolu gars yi ñu ngi ci liggéey bi euh, canal boobu ma lay wax noonu moom moo dem jàpp ci canal bu mag ba ba ci dolli ko mooy ñu karewaat ko côté kër ñang fi mu doon jéggee tali bi di di dugg ngiraaneen foofu def fa moom it canal boo xam ne cinq cent quatre-vingts mètres la mi ngi jógee ñaari pëna ba station totale bi léegi boobu yi dañ ko def ngir protéger ndox mi nga xam na moo doon jugee Kër Ñang di jéggi di ñëw Ngiraaneen boobu defar nañ ko ba dugal ay ay yi nga xam ne giri yi nga xam ne ñoo dem ci mbedd mi ñooy dugg ci mbedd yi ci koñ yi ngir di jëli ndox di ko dugal ci ci ci canal bi programme yooyu ñu def nag ñun loolu moo waral ñun tamit ñu ñu ñu ñu njort ne rek xëy na bu lépp bàyyiwul tamit lu ëpp dina bàyyi ndax ndox mi temps bi mu daan def ca quartier ba gis nañ ne daaw defu ko parce que canal ba mu fi jaaree nga xam ne danañ wéy di am di am fuñ sotti booba gis nañ ne loolu am na ci solo moo tax mu wàññi kii bi waaye nag bërëb bee nga xamante ni mooy ngelamu ndox ma di fa dem ba tey jii gars yi ña ngay liggéey waaye pareegul foofa it luñ man ci taxawu ba ba ba man faa monter ay pompe yoo xamante ni bu ndox mi accès ñun tamit suñu waa Kër Ñang bii de waa Ndaamaatu bii de waa Lansar bii de ndox ma bëgg a dajee foofa day defaat retour di ñëwaat ci ñun su fekkee nag programme nañ ay pompe yoo xam ne bu àggee ñu taal ko mu yóbbu ko kër kaabu su boobaa moom alhamdulilah danañ gën a santaat yàlla bu baax a baax a baax loolu moo waral man daal ñu ngi ciy am yaakaar ci ren ne xëy na mën naa am daye bi mu àggoon du fa àggaat ndax programme bi amoon daaw gën nañ koo yokk jërëjëf suñu Cheikh leeral yi am na solo mu mel ne euh, situation bi nga xam moo amoon ñaari at yi jàll la euh, comme ni nga ko waxee yaakaar judd na par rapport ak assainissement bi nga xam ne si taxawal nañ ko foofa ca Ngiraneen euh, assainissement bi ñen ñoo koy def foofu bi gis nañ ne waa ENAM si ñoo ci nekk ñooy liggéey waaye ONAS ñoom ñoo def ñoo ñoo ñoo def canal bi. ONAS eh, daaw tamit ONAS moom jàppoon nañ ci liggéey parce que man wowoon nañ ma Dakar ma ñëw ñu jox ma pompe sorti cent joxaat ma beneen pompe boo xam ne sorti quatre-vingts pompe yooyu nag daaw moo dimbali quartier ba lool en même temps ñu joxaat na électropompe boo ñu ngi ciy profité wax di santaale waa Senelec bu baax a baax a baax ndax waxtu wuñ leen wooyee rek danañ yombalal dikk gi lool jàpp nañ it ci ndox mi waaye ndox mi nag sëñ bi li ko gënoon a yokk daaw ñu bàyyi ko xel ndax eh, daa tombé woon nag robinet yi tëj bi robinet yi tëjee it eh, am na ñoo xam ne dañoo ubbi woon seen robinet di taataan di ndox bàyyi ko ndox mi lu ci ëpp buy ñëwit guddi lay ñëw bim ñëw guddi ñu daw génn ñu daw génn nag ci leen bàyyi seen rëbb na noonu muy continuer di xel ñun dañuy vidé ba yàgg ndax ngay vidé ak kër ba mu set boo xëyee suba nga gis ne kër gi mi ngi rempli waat biñ xoolee ci lañ gis ne ndekete dañoo fàtte woon a tëj robinet yi tombeek kii bi di xel robinet ubbi ah, ba ci dolli ko mooy am na ci yoo xam ne parce que ñun quartier ba dafa bëri ay miir yoo xam ne dafa daanu miir yi nga xam ne yàlla dogal na mu daanu it bu daanoo bu tombeek robinet bi da koy damm su ko demee nag rëbb bi day ko ne di xeele ba ndox mi muur ko bala nga koo gis rek da dem ba àgg ca loolu bokkoon na ci li nga xamante ni bii dëgg dëgg dëgg dëgg moo yokk ndox mi waaw. Euh, sëñ Cheikh ñu ngi ci ca eh, waxtaan wi ñu lay laaj sa kàddu gu mujj rek ak looy tàggatoo. Euh, sama kàddu gu mujj mooy di profité rek ci occasion bi nga xamante ni bi am nañ ko tey jii mooy ñu gën a góorgóorluwaat rek ci bassin ba fa ndox ma di dem daal lool daal sëñ bi buñ ko saafara njort nañ ne bu neexee suñ borom lii nga xam ne bëgg nañ koo saafara ci dëkk bi incha allah rabbi dinañ ko dinañ ko saafara ndax nam meloon daaw njort nañ ren ji liggéey nañ lu ko yokk lool nag daa am lu koy luy tax mu mën a mën a jàppande mooy ñu fexe ba defaral ñu ngelaw rek incha allah rabbi di sant bu baax nag kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier ba di jëlee sëñ Moustapha Mbacké mi nga xam ne fu ñu dem rek moom lañ fa teewal euh, muy mu yor quartier ba euh, di profité waale samay euh, kàddu yu mujj di wax ci marché ba marché ba xam naa ne waroon nga cee dugg sax nag ndax marché ba day ba ba fii may wax yow nii bu tawee day am ndox te ay daara ñoo ko wër suñ sa xaalim Mbacké fa la daaraam nekk te bu tawee day am ndox wax dëgg yàlla état bu fi nekkit di nga ñëw yónnee fa ndaw wax ne nañ dem xool ko ndax dañ ko bëgg a àggale waaye ba tey dañuy ñëw rek dawal seeni oto ñëw woo ñu ñëw toog waaye du mujj fenn foofa nag bëggoon nañ ñu dimbali ñu te marché ba it nga xam ne kenn ñi mu faa jaar guddi kenn du du man du même oto boo ko yee doo ko ñemee jaar te dafa rëy sëñ Saliou moo ko moo ko moo ko moo commencé woon ku fi ñëw sëñ Muntaxa bi mu toogee lim lim njëkk santaane mooy ñu baleel ko marché Ngirane Néne bi Baay Faal ñoo ko doon bale keroog bale ko ba mu set wicc ñu doon dundee yaakaar ba tey ñi ngi gën a am yaakaar ci ndimbalu sëriñ bi ñu koy jaare ci moom waaye daal bu ñu sañoon incha allah dinañu dimbali ci marché bi marché Ngirane Néne waaye dimbali ñuy defaral ñu ngelamu bu boobaa li saafara ci dëkk bi dana bëri lool. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf sëñ Cheikh xam naa ñu ngi ci bi. Eh, ñu seqoon ak eh, émission bi naan Touba ak tey Touba ak yi assainissement la woon ñu amoon ci suñ mbokkum taale bu naan Cheikh Ndiaye Kamal dëkk fee ci Ngiraneen mu am ay témoignages yum def ci at yi jàll ci ndox ci inondation bi sonal gum leen sonaloon ak yaakaar juddu ci ak assainissement bi nga xam ne si def nañ ko ca eh, quartier ba ñu ngi sant bu baax di leen gërëm mbokk téléspectateurs yi euh, di jox dig daje ci beneen numéro incha allah ak seen mbokkum taalibe Adama Gueye ci présentation bi jërë ngeen jëf waj'alhu da'ban maskana at-ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wat ومسكن التصويب والتفهيم